asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Ndao sama ndaw kunda bi maa ngi lay nuyu di la ziyaara kii de kenn ci sa buur yi la ñu di ko wax Mouhamadou Amine Sall ibnu Cheikh El Hadj Abbas Sall gannaaw bi ñu dégloo sa audio vingt-deux minutes bi nga xam ni maanaam yónnee woo ma ko dafay wëndeelu rek ba agsi ci man waaye nag gis naa ni man ci man nga ko adressé Eh, bu ma ci tontuwul ak bécc nga lay doon ak bécc nga lay doon bu fekkonte ni da nga ko waxee noo xam ne tamit eh, waxu dàgg sant la wala wax boo xam ne joxe cër amul respect ba tey du ci tontu parce que dàgg sant taxumaa jóg te yaakaar na yow taxulaa jot kon wax ji rafet na joxe nga cër eh, te desuloo dara ci yar ak teggin waaye tontu leet mënumaa tontu te leeraluma yi ma ci gis ci sa audio bi donte am na ci loo xam ne si dinaa ko wax ci internet bi ñëpp yi dégg mais am na ci loo xam ne si maag yow ñoo koy waxante parce que daf am loo xam ne njuumte la goo xam ni bu audio bi ñëwoon ci man direct man yow laa koy wax direct mais comme dafa wër te ñëpp jot nañ ci njuumte loolu te njuumte loolu ndekete moo indi coow li yëpp. ak ak li nga wax yëpp njumte loolu ko indi euh, du indi yëpp nag xam naa la ma ci wax leen rek la ci des maag yow ñoo koy waxante xam naa ku mel ne sëñ Xalifa Diène wala sëñ pam malik dinaa leen gis ñu fexe nuñ ñu jokkale parce que waru ñuy réeroo ci kàddu euh, nee nga waxu jàmbur nga nekk li li nga wax du sa wax waxu jàmbur la Eh, sama ndaw kunda bi maanaam waxu jàmbur bi nga nettali ni nga ko nettalee du noonu ni ko déggi du noonu ñaari bayit nga ci jàng te ñaari bayit di benn bu ci nekk ni ko jàngee du noonu eh, nee nga maanaam borom mu njetul murid dafa ni wa man yu jaalis mubghida cheikhi halak wa dalla fi mahaamihi wa fi xalak déedéet dafa ni wa man yujaalis mubrida alcheikhi halak wa dalla fi mahaamiha wa dalla fi mahaamiha wa fi halak mahaamiha jamcu mah mah ala wazni fa'lal ala wazni fa'lal jamcu bi nekk fa'aalil mah mah bi maana fa'lal mahaamih faalil boo nee wa dalla fii mahaamihi bu boobaa xaa bu mujj boobu da nga ko def damir te du damir xaa boobu laamul kalimi la laamul kalima la ala wazni faalil mahma faalal mahaamih faalil kon wa dalla fii mahaamiha wa fii xalak am na ñu koy ma sax fii mahaamihim waaye jaru ko woon parce que euh, maalaayeen sarif la te amul daruratu shi'r buy wanal buy waral ñu koy tanwin wa dalla fi mahaamiha wa fi xalak kooku noonu lañ koy jàng bayit bi léegi boo dikkee ci maanaa mi wa man yu jaalis mubxida cheikhi waxul nga dem toog ak moom rek daa di génn ci tariqa bi déedéet la ci jëkk mooy dalay wóor ni kii dafa bañ Cheikh na Ahmad Tidiane Chérif te bu ci dara mu wóor leen dafa bañ Cheikh na Tidiane ba pare tim mu jaala sa du jaageen ab toogaay rek la du jaageen ab toogaay rek la déedéet bu fekkente ni da ngeen di ànd di bokk di toogandoo ngeen xaritoo te ànd lépp yow xam nga ni kii dafa bañ Cheikh na Tidiane te bu boobaa alkande gi du jaagin da ngaa génn ci tarixa bi de xam nga bi nga koy fiiri nga tuddugaal dog nga ci tarixa bi déedéet halaka alku nga mooy soobu nga yoon woo xam ni sii boo ko bàyyiwul mën na laa bàyyi lool lu lay génnee ci tarixa bi parce que tarixa bi dafa am ay shurut dafa am shurutu sixa ak shurutu kamal ak ay aadab shurutu sixa mooy loo xam ni boo ko boo ko bàyyee rek charte boo xam ni boo ko manqué li rek gën ngi tarixa bi maanaam bokk charte yi da ngay werdu suba ngoon di wasifa par bis di xadaratu juma ak ajjuma bu fekkee da koo bàyyi gën nga ci tarixa bi jeex na gën nga ci tarixa bi boo jëlee werdu tijaan daal di jëlaat beneen werd fa nga jëlee beneen werdu tijaan rek beneen werdu euh, wali rek gën ngi ci tarixa bi am lu wax surutu kamal charte la ci tarixa bi doo diingat benn waliyu dangay ngay respecté wali yëpp da ngay julli ci mbooloo da ngay wasifa ci mbooloo da ngay dimbalanteeg say mbokk say mbokkum jullit rawatina say mbokki taaliba yooyu mooy ay surutu charte yooyu boo ko bàyyee kenn duñ la génn nga ci tarixa bi dañ naan la alku nga de lu la alak parce que yaa ngi sóobu yoonu alkane lan mooy sóobu yoonu alkande yoon wi boo ko bàyyiwul da nga def yàlla dana la nattoo nga def lu lay génne ci tarixa bi képp koo xam dafa yàgg saaga ay nit yàlla wala di leen xas wax wax ju bon bu ca continuer fetteerlu ca ca tuubu ko bu yàggee dana ko yóbbee lu koy génne ci tarixa bi kon ñooñu nga xam ne ñoo jël werd ba pare saaga Sidi Hadj Malick radiallahu taala anhu saaga Sëriñ Abbas saaga Sëriñ Babacar Si loolu génnewu leen ci tarixa bi da nga ne ñaan leen def ngeen lu bon soobu ngeen yoon woo xam ne sii ma nga leen jëme ci bàyyi lu lay génne ci maanaam boo boo boo bu fekkee da ngaa da ngaa di nga Seydi Hadji Malick nga yoon woo xam ne si boo ci àggee da lay génnee ci da ngay def lu ci tarixa bi kon boo bañee nitu yàlla wala nga saaga nitu yàlla def nga loo xam ne si mën na laa bàyyi loo tarixa tijaan yi xam nga benn waay boo xam ni dafa sox dafa jël fetal sox ci ay bal jëmee ko ci boppam dañ naan ko alku nga waaye bu fekkee ne tiirewul nag bu tegi képp koo xam ne sol na sox na fetal ba mu sox def yëpp diir ko jëmee ko ci boppam dañ naan kii alku na parce que buy tiire rek di dee waaye bu yàlla defee xelam dellu siwaat mu daal di sànni fetal ga wala mu soqi soxee nag bu mu dindi sox ya bu boobaa mais képp koo xam ne si nag tiire na fetal ci kawam nag moom day dee kon koo xam ni si dangaa saaga nit yàlla yi bàyyi nga adaban min adabi tariqa tijaan yi képp koo xam ne doo jullee ci mbooloo doo wasifa ci mbooloo bàyyi nga ci aadabu bàyyi nga sart sartu kamal yoo xam ne si moo am ci tariqa bi sartu kamal nag boo ko bàyyee dalay wommet jëme la ci lu lay bàyyee ci looy bàyyi loo tarixa bi booy di nit yàlla kon xale yi nga xam si dañ doon saaga sëriñ si yow dara wóor la ba xam dañoo bañ Cheikh Anta Tidiane waaye nag bàyyi nañ teggin ci tarixa bi parce que ña ngay saaga ay wali yoo xam ne donte duñ donte duñ ay tijaan bu boobaa bàyyi nga adab ci adabu tarixa waaye génnewula ci tarixa bi dañ naa la yow alku nga lan moo la alak parce que soobu nga yoon woo xam ne si boo ko wàccul dañ la génne ci bi kon loolu mooy maanaa bi euh, sëriñ bi beneen bayit beet ni nga ko waxee du noonu xam nga da nga ni wa charrada rasulu wa charrada nahya lana rasulu loolu amul ci mun yëpp murit an nahyi laa yu charrad laa yu charrad xam nga charrada charrada nahyi munte nekk charrada nahya li am ci mun ya mooy wa shaddada wa shaddada an nahya lana rasulu yow da nga ni wa charrada maanaam musharrat musharrat mooy ab clochard koo xam ne maanaam dafay taxawal rek amul fu mu jëm kooku mooy tashrid kon annahyu laa yusharrat kon ni nga jànge bayit bi du noonu wa shaddada nahya lana rasulu fi daaka ah. kon du léegi nag euh, wax nga ci sa audio bi ba tey loo xam si da nga ni li nga wax ci audio bi bi nga ma yónnee bi bi nga yónnee tasaare ko ci àddina muy 22 minutes bi wax nga ci loo xam ne moo gën a garaaw li xale yi wax parce que xale yi dañoo saaga ay nit yàlla mais yow danga ni ku dul tiijaan safara nga jëm da ngaa ji seppi tiijaan teg ne daan ni keneen ku dul tiijaan ci mboolem awliyawul yëpp sawar lañ jëm. parce que da nga ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee euh, daañ ko xaaj juróom-ñaar fukki xaaj ak ñett loolu am na yonent bi sallallahu alayhi benn képp ciy dem àjjana juróom-ñaar fukki yeeg juróom lañ jëm euh, euh, waaw juróom-ñaar fukki ak ko seet juróom-ñaar fukki xaaj ak ñett dama juum juróom-ñaar fukki xaaj ak ñett yonent bi salaa sallam nee na juróom-ñaar fukk ak ñaari yépp dañuy dem sawara benn bi képp mooy dem àjjana nga ni benn bii dem àjjana mooy tiijaan mais si si ndaw loolu gën a garaaw li xale yi yow yow da ngaa saaga ñëpp wala yëpp nga saaga parce que saaga saaga nit yàlla weesuwul nga ni ko sawara nga jëm te yow nee nga juróom-ñaar fukki njëkk juróom-ñaar ak ñaari dañuy dem sawara loolu xadis la nee nga benn bi rekk ciy mucc loolu xadis la mais yow nee benn bii mucc mooy tiijaan xale yi dafa am yenn nit yàlla yoo xam dañ leen saaga xas leen yow nag mbooleem da ngay nit yàlla yëpp da nga ni sawar lañ jëm waaw man daal xam naa ni bay boo ma yem foofu li ci des dañ ko waxante maag yow mais audio bi am na ay njuumte yu baree baree baree bare mais yi ci gën a garaaw rek mooy lii kon ñi ngi lay xamal ni saaga nitu yàlla yi génnewul kenn ci tariqa bi moo xam Serigne Abbas nga saaga génnewul ci tariqa bi Seydi Hadj Malick nga ci tariqa bi Serigne Babacar Si nga saaga génnewul ci tariqa bi waaye def nga lu bon lu rëy rëy alku nga xam nga lu la alak yow mi saaga ñetti ñi ak ñu mel na ñoom mooy soobu nga yoon woo xam ni si dalay bàyyi loolu loo xam ni dafa naan la tipp dog la ci tariqa bi benn waay boo xam ni jël na werd waaye du wasifa ci mbooloo kooku mokku saaga nit yàlla ñooy am parce que bàyyi na sartu kamaal képp ku jël werd te doo julli ci mbooloo doo wasifa ci mbooloo nga continuer ko doo deewaale tarixa bi te ànd ak loolu génnewul wala tarixa bi de waaye nag moo lay wom mat jëme la ci lu lay bàyyiloo tarixa bi kii saaga nit yàlla yi kii bañ nit yàlla yi génnewu ko ci tarixa bi de waaye nag mi ngi koy wommat di ko jëme ci lu koy bàyyiloo tarixa bi mën na am nag bala muy àgg ca loola tuub ki saaga sëñ Muntaxa saaga sëñ Tuubaa saaga sëñ Hajji Maalik saaga sëñ Babacar Si Mansour saaga sëñ eh, kii eh, eh, sëñ sëñ sëñ ba radiyallahu taala ki ko saaga soobu na yoon woo xam ne bu ca àggee dog ci tarixa bi waaye balaa àgg mën naa tuub mën naa tuub loolu mooy wax ji kon wa man ñu jaalis mubxida cheikhi xalak du jaagee ni dangaa toog mu daal di alku alkande gi tim du jaagee mooy dog nga ci tarixa bi sóobu nga yoonu nga yoonu alku parce que yoon yi boo ko wàcciwul boo àggee dangay ngay def lu lay génne ci tarixa bi waaw kenn du wax tim wa dalla fii mahaamihi déedéet wa dalla fii mahaamiha jamcu mah mah mooy manding wala boog wa dalla fii mahaamihim comme ni ko ñenn ñi di bind waaye wa dalla fii mahaamiha moo gën a balaaxa moo gën a luxa aywa wa shaddada nahya shaddada bi daalayni ala wasni faala yonent bi sallallahu alayhi wasallam taral na tere gi teral na ko waaye du wa sharrada sharrada nahyi li muy gën a firi mooy tere gi ci boppam yonent bi sallallahu alayhi wasallam teggi na ko tereetu ko waaw kon ñi nga jànge bayit fi ngay tegtaloo du noonu ni nga ko firee di noonu loolu moo waral nga ni ku bokk ci parti sàng dog na ci tarixa bi te ba pare tamit même bu fekkonte ni dañ ni ku xas Cheikh Al Tidiane wala ku ko bañ dog na ci tarixa bi kon moom moom mooy dog waaye ñam nekk ca parti ba kay kenn ñoom bokkuñ ci dogge xoola ku saaga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ko saaga dañ ni nekk nekk na ab yéeféer yéen ñoom boo ko saaga même boo tuubee dañ laa war a rey même boo tuubee dañ laa war a rey mais ñi nga xam ne si ñoom la bokkal kër ñam bokkal tariqa ñam bokkal mbooloo ñooñu koy seen yoon nekkuti loolu daal lay amul lu ñu ci doon wax li ci des incha allahu danañ ko waxante ñaan yàlla may ñu dégg ak topp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu